building congregation that is remembering that in 1937 when Sheikh al-Islam came to Nigeria to Rome, back then, he was the only one who knew that his effort will be rewarded like this. There's a good thing. My memories of Bangalore come to the time when Sheikh Abdullah Ibn Abdullah we have also the scholars with us, the Sheikh Ahmed Tijan al-Khalif and the Hamad Mustafa Hamdok among them, just like this. One more time, history is being repeated. أشبح الليل بالنهار الحمد لله رب العالمين. أحباب Sheikh Islam, this humble delegation led by Sheikh Abu Bakr Yas came all the way from Medina Kaulah with the barak of Sheikh al-Khalif to celebrate this holiday with our fellow Ahbab. We will take this occasion, however, to request and thank you, Sheikh Tahir Usman. With the barak of Sheikh al-Khalif to celebrate this holiday with our fellow Ahbab. We will take this occasion, however, to request and thank you, Sheikh Tahir Usman al-Bouti. Thank you for your Quran lecture. jazakallahu khairan wa yawafil islam jazakallahu khairan wa yawafil tariqa jazakallahu khairan wa qutl tariqa al-qawi jazakallahu khairan for being a reference to this upcoming generation exactly working on the footsteps of Maulana Sheikh Islam remember when Maulana Sheikh Islam was going all the way in Africa in Europe in Asia spreading Islam, giving Tariqa, pulling people out of the Tariqa. God said himself, I am doing all of this for only one reason, to give the upcoming generation an example, to be the reference and uh, the upcoming generation who are opening to the gate and living in Islam. Share that. I bear witness, we all bear witness, that these young people, us, If we have a case decision coming as one case, then yes, we heard your, your, your um, recommendation. Yes, you have followed your recommendation. Thank you very much. Salam alaikum. جماعة الشيخ إبراهيم الله أكبر إنما أنا واحد منهم لست شيئا إلا أنا واحد من جماعة الشيخ إبراهيم رضي الله عنه الجماعة جماعته والمتصرف بهم جميعا إلا أني رأيت بركاته ودعا لي بخير ورأيت ذلك إذا رآني دائما إذا رآني يقول ظاهر أهل القرآن أهل القرآن أهل الله لا سيما إذا كانوا أهل الله ليس هكذا يسميني أهل القرآن أنا فلذلك لهذا لهذا الدعاء عندي ولد لي حوالي شيء وستون نفسا من ذكور وإناث كلهم حفظ القرآن الله أكبر شيء وستون هل من يحفظه؟ ليس وكان نون يارا ستة ستة وستين من أولادي وبناتي من حفظ القرآن الله أكبر ذلك من بركات الشيخ الوهشام ما شاء الله والآفاق كله كله حافظ والأحفاد أكثر من 100 والأحفاد أكثر من 100 حافظوا القرآن كلهم كل ذلك من الله شيخ ما عندنا شيء إلا شكرا ما شاء الله وفي نهاية المطاف نتبرك بلغتنا المحلية الولفية أنا خلينا من نخسرين به ولكن ضعيفة إن شاء الله طيب طيب نيسان يريد أن يقول إيش ماذا قال؟ وفي طيب نيسان أيضا واحد طيب نيسان loo ñu mën a wax ci mmh. Baye Niass. Mmh. sa diggante ak moom loo ci xam ba ca tey ba ñu seen. ak Kossy ak Kossy yëpp ak Kossy man xam naa man mmh. xam naa tey ba Niass xam naa dem na dem naa foofu. waaw alhamdulilah euh, Baye Niass. affaire yàlla rek. Oh, affaire ndeysaan affaire lan moo tax ngeen bëgg ko. naam lan moo tax tey ngeen bëgg ko Nigéria ay million doomu aadama nekk taalibe Baay Ñas tey. waaw loolu yàlla rek loolu yàlla lépp yàlla rek def rek def loolu. Mhm. macha allah. alhamdulilah. allah.